am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jégleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ni yéen a ngi ni topp ci seen émission al fatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana docteur Mouhamed Ahmed Lo xafidahu llahu wa raa tey fanweeri fan ci weeru baraxlu mille quatre cent quarante quatre suba war a nekk euh, benn fan ci weeru koor tombeek le vingt deux mars deux mille vingt trois ñaan yàlla subhanahu wa mu àggale ñoo koor gi ci jàmm ak salaam ñu leen di ziar yéen ñuy topp moo xam ci biir Sénégal la wala ci biir Afrique ci Europe ci Amérique ci Asie ci Australie ci fu doon ñu ñuy topp ci Leeral FM bi ci Louga wala Keppaar ga ca Kaolack Salaam ba ca Mbàkke Leeral ba ca Podor Leeral ba ca Ziguinchor wala sax ci réseaux sociaux yi Facebook beeg YouTube beeg euh, WhatsApp yeeg yëpp ñu ngi leen di ziar. njëkk ñuy tàmbali xanaa di leen yëgal rek benn xew-xew bu am solo bu am solo lool sax mooy xumaatu sunna wa ulama wa ulamaiha fi Sénégal muy les défenseurs de la sunna est ses savants au euh, au Sénégal ñoy organiser benn point de presse boo xam ni ñu ngi koy def ajjuma incha allah rabbi buñ jullee jumaa ba pare di ko defee ca jumaay Abdullah ibn Mubarak ba nekk ca Pikine fa nga xam ne fa université africaine des études islamiques bi nekk muy alkulliya al ifriqiya li dirasat al islamia suñ ajuma ba pare euh, bëgg fa leeral nag tomb yu am solo waaye bokk na ca yooya mooy taxawaayu docteur Mouhamed Ahmed Lo xafidahu llahu wa ak position ci politique bi ak fii euh, réew mi toll ci bunt boobu leeralaale fa yeneen mbir yoo xam ne yu am solo la yoo xam ni incha allah rabbi ñi ngi ci invité média yëpp di ci invité télé yëpp ak rajo yëpp ak site yëpp incha allah rabbi kon ñu ngi leen di jox euh, rendez-vous ajjuma bii incha allah rabbi suñ jullee ajuma ba pare ca Pikine ca Abdoulaye Mbarak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 jazakumullahu xayran euh, groupe boobu yi nga xam ne ñooy bëgg a taxaw ci liggéey boobu yi ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal leen ca tawfiq sàmmal leen sàmmal leen seen i diine ak seen i pas-pas ak seen àdduna ak seen njaboot kon ni nga ko waxee rek ñu daal di dellusiwaat ci liggéey bi déglu li nga jot a tiim ci ay laaj. baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakumullahu xayran cheikh bi soxna si nee na. dafa dégg ñu ni képp koo xam ne da dog ci bëccëgu weeru koor te tey ko da uh, woor ñaari weer yu tegaloo walla nga leel juróom-benn fukki miskin mu ni ndax noonu la demee ko xam da ngaa lekk te tey ko wala nga naan te tey ko ndax noonu nga koy fayee. alhamdulilah dog ci bëccëgu weeru koor te tey ko de ci koo xam ne koor war na ci moom. bakkaar la bu rëy rëy boo xam ne ay ba dem na dayo moo tax ci ko def la jëkk ci li ko war moom mooy tuub su ko defee nag waxi boroom xam-xam ya xaw naa limu foofu ñu nee bu tuubee ba noppi day fay bis mu doy waaye ngirum al imam Malik dañu ne loolu doyut ndax ki dafa xotti war may ramadaan ci anam goo xam ne kafaara moo koy war kafaara mu xollasa mooy kafaara gu talal kafaara gu tar mooy na woor yaari weer yu toftaloo yoo xam ne bu ca dogee benn bis rek day tàmbaliwaat su fekkee lott na ci mu leel juróom benn fukki miskiin loolu yi moo koy war boole ko nag ak tuub ba noppi fay bis ba bis bi nga xam ne moom la dogal bokkul ci ñaari weer yi ñaari weer yi mooy mbugal mi ko teg fii ci àdduna waaye bis moom da koy fay ba noppi tuub ne loolu lépp tuub ko def ci doon ko nangul mu woor yaari weer su ko defee jaanam door a wàcc la ci billit moom mooy sori lépp loo xam ne luy niroog loolu la mooy santaane sa borom tabaraka wa nga di ko xotti te tey ko bëccëgum dara kam loolu musiba la naam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi kii nee na koo xam ni da ngay da par jour xam naa dafa jabet ndax dina dagan ci moom mu woo alhamdulilah euh, xëy na jombul ndax ñaare ku jabeet ba toll ci di pikiiru door a lekk moom lu gën a bari mooy doo mën a woor waaye rek ñu jàpp ne ay piqûre rek lay wax piqûre yi nga xam ne dañ koy faje tawat wala ñu di ko calmer ay métit wala yu nuroog yooya te fekk piqûre jàmm génne rek la yooyu yàquñu koor bi yàq koor mooy ay butéel yoo xam ne dañ ko ko sampal nga xam ne day toog palaasu lekk ak naan moo xam nag ndax ma ngay wàcc aw tàngoor wala ko di calmer aw métit wala defu ko waaye ala kulli xaal li fee ñi ngi ko ko sampal moom du xiif mar loolee mooy toog place lekk naan su ko su boobaa butéel yooyu moom day yàq koor waaye piki yi samp seen ki moom yàqul koor wallahu taala alam jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na ñi ngi dëkk bitim réew Euh, ñi ngi nekk bitim réew ay sénégalais lan ñu ñu bokkandoo dëkk ci kër bu ñuy julli am na koo xam ni ah moo leen raw ci àlliwo moo leen di jiital moo leen di jiite waaye kooku moom day takki téere ak i boggal mu ni ndax dina dagan ñu julli ci ginnaawam alhamdulillah ilimaan di takki téere jaaroon na fi ci alfatawa lañ ci waxoon rek lañ ci waxaat mooy téere yi ñaari xeeti façon lañ am na ci yoo xam ne ay géjjën la ak ay reen ak ay weeyi njanaaw walla mala ñu di ko jël di ko takk walla ay weñ yoo xam ne dañ koy xoob wala ñu bind ci kaw ay xaatin yooyu yëpp moom takk ko musiba la shirk la yaakaar ci lenn ci njëriñ wala lenn ci lor ju muy loolu bokkaale la am na xeetu téere boo xam ne alxuraan kese la ju ñu bind jooja dañuy wax ne li wér mooy bañ gee takk moo sax takk ga jaaduwut waaye nag gisul wax ne bokkaale la loolu su fekkee dafa jéggi ak takk rek waaye nit ko daa jëlu xolam wékk ko ci téere bi su boobaa rek loola bokkaale lay doon moom itam waaye su ko takkee daal ngir am yu muy muslu wala yu mel noonu taat ci alxuraan la ko yaakaar su boobaa dañ koy wax ne ko li nga def agul ci bokkaale waaye lu jaadu wut la alxuraan takk ko taxu koo jóg te su ko takk kooku nag du tee mu mën a jiite aw nit ak julli su fekkee ne ña fa nekk daf leen a dàq julli noonu ni la deme su fekkee ne moo leen dàq julli su boobaa euh, mën na leen a jiite mu des nag ki takk loo xam ne yow xamoo ndax ci lii la bokk wala ca lee da nga ko gis rek mu takk ay téere te it ma ne su ko laaj ba xam lu mu doon waaye wóor na la ne kii moom mi ngi takk ay gàllaaj su boobaa day nit ki day ijtihaad kattanam su fekkee gis nañ ci moom lu dalal xel ni kii war naa mën a mucc ci bokkaale xelam dal ca mën naa julli ci gannaawam su amee lu mu sikk sàkk nag ndax gis na ci ay leen jëflanteem luy wone ne kii soriwul bokkaale te it mën naa tàbbi ci bokkaale su boobaa na wàccu ndànk seeti yeneen jàkk mu defa julli li feeg waajooju mu ngi nekk imaam foofu yi su fekkee kuñ mënal la <coughs> laay biir la nag bu mu tekki lépp luñ ko xeetu gàllaaj te wakkiirlu ci yàlla boole ko askaar yi yonent bi jàngale muy alquran ak sunna su fekkee mën nañ ko laay biir muy def loola loolee day mooy muxtaar ma wallahu taala alam jërëjëf cheikhana barakallahu fikum cheikh bi laaj bi mi ngi jóge ci Assane Diatta nee na dafa am benn mbokkam boo xam ni daal dafay laaj ndax dafa yore ñaari soxna kenn ki ma nga Dakar fa moom fa muy liggéeyee keneen ki ma nga village moom nag euh, dinay def Dakar un mois après dem village def une semaine wala lu ko gën a néew mais nee na euh, benn soxna si day kaas lu tax tolloo lawu leen te moom liggéeyam lépp dakaar la te euh, ka ca village it mënta jóge ca village ba foofu la nekk mu ni kon euh, nu muy def ndax loolu mu def ñàkk maandu la wala mi ngi cig maandute alhamdulilah kooki ñaari soxnaam kenn ki nekk fi mu liggéey ka ca des nekk ci seen dëkk muy def bu amee fii weer dem am ay fan su fekkee ne dañ koo waxtaane ba juboo ko juboo ca ñaari soxla yëpp d'accord ca loola rawatina ka nekk ca dëkk ba su fekkee d'accord na ca loola moom day wéy dara nekku ca su fekkee d'accordu ca nag lii rekk moo fi des mooy su nekkee ci dëkk ba ka ca des nekk ca liggéeyukaay ba ba mu yàgg ci misaal ba mu am ñetti weer ñu weccee ki newoon ci capital bi dem ca dëkk ba ka newoon ci dëkk ba ñëw ci capital bi ñu weccee ba mu am diir bu toll noonu ñu weccee waat continuer rekk di ko dunde noonu waaye nag su fekkee kële nekk ca àll ba mooy kaas ñàkk yee yemale ci ay fan yu fay nekk ba noppi moom wóor na ko ne mënta jóge foofu dem fële ci capital ba ah su boobaa nag mbir ma ci moom lay dellu ginnaaw borom këram nangu na mu ñëw ci capital bi moom ma ci capital bi bañuta ñëw ci àll bi ba kero ak di mat su loolu moom mii dëkk ba kët kon bu boobaa moo def tanaasul ci xaqam maanaam moo dellu gannaaw ci loo xam ne moo ko moomoon mu bàyyeeku ka ca des noonu rek la ko sharia di jàppe yow daal sa xàq la soo ko bëggee kaay defee ko di soo ko bëggul na nga toog noonu rek la waaye mu ne su kuy liggéey nga ne ko faaw nga am weer nag ca dëkk ba sa liggéey toog ko di la xaar wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi kii mi ngi bitim réew nee na dafa bëgg aji mook moom ak soxnaam mais am na seen doom joo xam ni bu bu aji xëy na dina am onze mois ndax fi ñu toll mi ngi ci set mois jëm huit mois mais nee na dafa am ku euh, ni soxna fi seen doom ji bu ngeen ko fi bàyyee dem aji ñëw loolu àq la kon euh, ngeen toog toppatoo ko moo gën di farata ngeen dem di aji te moom xam na ni suñu demul ren dina jafe lool ñu ñu demaat mu ni ndax mën na noo dem bàyyi ko fi Euh, rawatina soxna si am na ay sëram yoo xam ne ñi ngi dëkk fii ci euh, bitim réew man koo yore amuñ benn problème alhamdulilah doom ju xas dem ba am onze mois day surtout ni mu ko waxee nee na moom mën naa sukkandiku ci boppam ci lekk ak naan mën naa toog du soxla yaayam ci lekk ak naan te am nañ ay yox yu wóor yuñ ko mën a bàyyi dem ba del delsi su fekkee noonu la deme nag loola moom wartatee ku bëgg a aji mën a dem aji noonu daal moom mën naa daal xel ci mu ànd ak soxnaam dem aji buñ dikkee fekk bi seen doom xaj mën naa bañ a yàgg xam ne nañ koy organiser rek da dem dajeeg aj nga aj aj nga ci bisi allahu taala alam jazakum allahu xayran barakallahu fikum cheikhana cheikh bi kii nee na moom daal dafa bëri lu muy sikki sàkk mu sangu farata sax di sikki ndax sangu na farata wala sangul farata yeesaa mu toog naan euh, ndax dafa fase woon soxnaam wala fasewu ko da koy da lool donte nee na nag euh, de temps en temps mu laaj soxnaam ne ko ndax dama laa waxoon ne la fase naa la soxna su ne ko déedéet mais neen loolu daal da koy sonal loolu loo koy dénk ak loo koy baax alhamdulilah kooku de li ko dal mooy li ñuy wax was-was sukki sàkk bu bari moom bu jéggee dayoo dana dem ba àgg ci nekk feebar lenn lu nekk rek mën ngaa jàpp ne def nga ko te fekk defoo ko loo def lu ne it mën ngaa jàpp ne def <laughs> defoo ko noonu lay dikkee nit lu ci bari nag seytaane la mooy jax jaaxal nit ki di ko yàqal ay jaamu yàlla am su ko defee la koy saafara mooy bari looy jàng alquran wa ida qarata alqurana jaalna baynaka wa bayna alladina laa yuminuuna bil axirati xijaaban mastura soo jàngee alquran mooy nekk kaaraanga sa diggante ak noon yi kon nay bari lu muy eh, jàng alquran rawatina ayatul kursi su ko defee nag la ca des mooy bëreeg waswaas boobu yi su sikk sàkka dikkee nga teg ko fële la nga jàpp ne def nga ko daal bu kenn mën a tax nga ne defuma ko li nga defut it bu kenn mën a tax nga ne def naa ko noonu rek la wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi kii mi ngi tudd Mamadou Diop nee na mi ngi bitim réew yaakaar naa France la wax nee moom day faral di watu dégradé mooy lépp bañ a maase daal mu am lu mu gën a wat am leneen lu mu bàyyi ci kaw léegi nag mu ni ndax loolu dafa xaraam wala xaraamul ndax dafa am ñoo xam ne naan ko sa li koo ki nga xam ne day wat lenn ci boppam bàyyi la ca des am ñu ne ko jaaduwul ñooñee wax nañ dëgg jaaduwul kay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na kuñ defal noonu muy ak gone mu ne ko déet bu leen def lii moom kay bàyyil kawar gi lépp noonu wala booy wat watal lépp loolu nag su fekkee ci gone la koy wax boo xam ne matagul mu kallaf mag mi dem ba nekk mu kallaf moom taxut ñuy wax yooyu li ci gën a bari ay roy dàq la yoo xam ne aw nit a koy royee ci ñeneen rek du seen aada du seen cosaan yi ba jële ci ñoom te ñoom doonoon seen aada seen cosaan sax buñ doonee ay jullit aada ji juyoog ndigali sharia moom des ko war a teg ci suuf kon lañ koy dénk rek mooy su dee waxtu na wat kawaram lépp su ko bëggee bàyyi kawaram di ko toppatoo it mu bàyyi fi kawaram di ko toppatoo te bañ ko wat wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi kii mi ngi tudd Mouhamed Keita di wootee France nee na moom day dafa bëggoon a jënd kër ndax dina dagan mu dem ci banque islamique ñoom ñu ñëw jëndal ko ko après labal ko ko mu koy fay li tax nag nee tamit muy laaj loolu mooy dafa bëgg aji tamit màkk ndax bu defee loolu ba pare mu nekk bor mu koy fay dina mën a dem aji màkka parce que dafa am occasion pour bëgg a dem aji ren ndax su ko deful ren mën naa am mu jafe ci moom waaye ndax tamit amee na bor wala day dem aji ba ñëw doogay dugg ci jënd kër bi wala nu muy def alhamdulilah mu um kay nit ki bu fekkee ne dafa bëgg jënd kër wala leneen sax lu dagan na jënd te yorul njëg gu ko mat mu gis keneen ku ko jënd ba noppi lebal ko ko loola lu mën nekk la moo xam keneen koo ku jënd nag daa nekk nit wala daa nekk banque defal ko ay mensualité mu di ko fay par weer ba ba muy mat bor bu bindoo noonu nag du tee aji ndax ginnaaw weer wi mu digee moom weer wu dee wu ne dana joxe li mu war a joxe te loola téewul mu mën a aji ñibbisi loola du tee aji bor bay tee aji kay mooy bor boo xam ne waxtu wiñ ko war a fay dafa teew ci waxtu aj mu wóor la ne boo ajee doo mën a fay bor bi te yaa digge woon ne ci waxtu wii nga koy fay te boo ko fayee it doo mën a aji su boobaa dañ ngay wax fayal bor bi te toog bul aji bor bi moo jiitu lu dul borom bor ba dalaa wax ne mën ngaa dem aji boo dikkee ñu door a seet na ñuy def su boobaa bu la neexee aji wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi kii dafay laaj mu ni lan moo tàqale diggante rabbana ak allahumma waaye neen tamit lan moo tàqale diggante azikr ak ak du'a alhamdulillah rabbana mooy yow sunu boroom allahumma mooy yow saa boroom la leen tàqale rek mooy la tàqale sunu boroom ak saa boroom zikr ak du'a zikr mooy tudd yàlla addu'a mooy ñaan ñaan nag dana nekk ñaanu jaamu yàlla waaye dana nekk ñaanu masala muy soxla dara di ko ñaan sa borom zikru nag moom tudd yàlla la jaamu yàlla rek moo koy tax naam waffaqakum albaari jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na ndax dina dagan nit waqf loo xam ni danaan waaye nag suma deewee lay doon masalan sama kër gii ma dëkk def naa ko waqf suma fa suma faatoo waaye feeg maa ngi dund nekkul waqf alhamdulilah waqf day mooy li nga am ci alal joo xam yaa ko moom mu lew la nga daal di koy génne fi saa ne lii dama koo def fi sabilillah la muy jëriñ na ko diw sàngam wala diw sàngam ñoom wala association sàngam wala jàkka sàngam wala daara sàngam nañ ko jariñoo mu daal di génn say yoxo fekk yaa ngi fii fi àdduna am nag leneen li ñu tuddee wasiya loolu mooy testament nit ki day wax ne sama alal bi bu ma génnee àdduna nañ ma ko defal nii fi sabilillah ñoom ñaar ñooñu nag léeg-léeg dañuy duggante muy waqfu ak wasiya waaye suñ duggantee nag waqfu dañ koy jox ak tey wasiya noonu yi mu wax su ko defee ne sama kër gi su ma génne àdduna nañ ma ko defal nangam wala sama benn pii su boobaa dañuy wax ne ah lii di ginnaaw defu ko ci dundam dëgg la waqfu la ndax fi sabilillahi la waaye nag wasiya lay doom su ko defee dañ koy jox àtte wasiya mooy xool ndax lii mu joxe nii nan la toll ci alalam jépp su fekkee ne ëpp na sulusu alalam dañ koy wàññi ba mu yem ci sulusu alalam sulus mooy ceer maanaam buñ defee alal bi ñetti xaaj daal su fekkee ne lii mu dénkaane ëppul benn xaaj ba kon loola dañ koy wéyal mu nekk wasiya boo xam ne waqf la su fekkee loola da ko <coughs> da <coughs> dañ koy wàññi naam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi kii mi ngi tudd Rawxaan lay di wootee ca Ndar di imam tamit nee na dafa am néew boo xam ne ña ngi ko jullee woon ca euh, bitim réew indi ko bi ñu ko indee ñu teg ko ci jàkk ji ba koy waaji julli am ku ni jarul ñu koy jullee nañ koy yenu dem suuli ji parce que jullee woon nañ ko France mu ni ndax dagan na néew ñu jullee ko ñaari yoon wala déet alhamdulilah li ñu tuddee takraaru salaat ala janaasa ñu baamtu jullee ab néew loolu di lu sax la lu wér la ab néew def na baamtu jullee ko léeg-léeg nag am na ñuy wax ci diine waaye dañ koy jaawaleeg li ñu tudde salaatul ghaib ku fa nekkul nga xam ne dañ koo jullee fi béréb ba noppi kooka la ñuy wax ne li gën a wér mooy di su ko jullewaat julli ku fa nekkul waaye nag néew bi nga jullee ko ba noppi fi béréb ñi ñëw ñu jullewaat ko fi beneen béréb wala ñu jullee ko ba noppi <clears throat> am ku fekkewul woon julli ga dikk fekk ñu denc ko ba noppi mu taxaw ci xabru ba julli loolu yi day bokk na ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na soo xam ne ci jamono yonent bi alayhi nit ku ñuul la woon nangu woon a sonn lool ci jàkk yonent bi sallallahu wa sallam di ko bale ak di ko defar yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn ci tukki bi mu dikkee gisatu mu laajte ñu ne ko moom kat sa gannaaw la faatu ba yóbbu nañ ko ba denc ko mu ne kaay leen woon ma xabru bi ñu ànd ak moom ba ci xabru ba ne ko fii lañ ko denc alayhi salaatu wasalaam daal di taxaw kàbbaral ko ñeenti kàbbar jullee loolu moom la ñu tudde baamtu jullee ab néew loolu la saxaaba yi ci moom ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko tegee fa jàkkaam ja gannaaw boo xamee ne génn na àdduna noonu yi lañ ko doon jullee mbooloo mu dikk rekk jullee dem toog meneen mbooloo mu ak seeti dem jullee liñ demee ba mbooloo yépp daj nag nga xam ne daanaka jël na bi bisu lëm wala ñaari bés so lañ ko door a jël nag yóbbu ko ci këram bu tedd gale nga xam ne fa la féeru di nelaw tey wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf na cheikh bi kii nee na ñoom day seen euh, dëkk wala seen village wala seen gox daal danoo baaxoo liir bu fa faatoo rek duñ ko yóbbu ci armée de dañuy xool ci ginnaaw rek kër gi ñu suul ko nee nag su seen kër dem na bay waaj a nekk armeel ndax juróom benn liir a nga fa ñu suul mu ni ndax loolu dagan na wala yenn orientation nga leen di jox alhamdulilah léegi boobu faatu day bu fekkee ne dafa dem ba am ci biir loo xam ne mat na yetti weer jëm yent su xasee am yenti weer moom nit la kooku su génnoon ci biir ba booba it dañu jàpp ni kii la waaye teewul nit la su boobaa lay jaadu mooy yóbbu ko ci armée li denc ko suturaal ko ci càngaay denc ko foofu waaye di su ko denc ci biir kër su fekkee dafa yées yenti weer nag nga xam ne nit ku sosoogul ba mat la woon su boobaa su leen neexee ñu yóbbu ko ca armeel te mooy la gën waaye ñu amee keneen fuñ ko mën a sool mu suturlu fa te dara du ko soli di ko lekkit su boobaa loolu lu mën a nekk la wallahu taala alam barakallahu fikum wa jazakum allahu xayran waffaqakum allahu lima fihi alxayr wassalah ci tontu yi leeri cheikhana yàlla na la yàlla sàmmal euh, yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission alfatawa ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu